ku ci mel nii comme ni ko Sayyid Lubayt Sanqiti leeralee bind ci téere di leeral Jawharatul Kamal mu ñi nga xam ne ñoom doo wax sax ne munkiru nañ waaye way réer lañ yoo xam ne ñu ngay réeral ñeneen ñu dul ñoom ci ñàkk xam ñu daal di bind téere ku ci mel ni Seydi Muhammad ibnu Muhammad ibnu Abdusalaam Kanuun téereem bii di xelul afaali li qiraati Jawharatul naka noonu Seydi Mouhamed Ibnul Amin Sinqiiti bind na ci tuddee ko raddul xik raddul muhkam fi sixatil asqam dégg nga la boo xam ne day day day delloo tuuma ci ku bind jàngale jéem a xam jéem a gëmle gëmal nit ñi ne dégg nga jawharatu kamal wérut ndaxte baatu asqam bi firi feebar siraati ka taamil asqam boobu ñu ne loolu du lu wér gis naa sax ku ci def audio boo duggoon YouTube bi sax mën nga koo gis mu ne ndeysaan loola jël la sax ci salaatu yi pour ñu wane ne salaatu bi wérul waaye loolu ñàkk xam kese gu ci am la ndaxte eh, luga arabiya su fekkee làkku arab su fekkee ne yàlla mayul la ci tamkin nga bëgg caa wax rek nga nga daanu daanu bu méttee méttee métti loolu xëy na moo leen ci dal buñ ci yegsee incha allah dinañ gën a yaatal baatu asqam boobu bañ xam ne rekk fi ko gaa yi yóbbu bëgg a wax ne mooy jóge ci suqum gi fii di feebar pour ñu xam ne baatu asqam bi jógewut foofu allahuma salli wa sallim ala yàlla na nga julli yow yàlla te sëlmal ci ci jëmmi jëmmi yërmande yàlla ji nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima ko tagg feneen رحمة الخلق أصله من أنار الحس والعقل برو كل عليل ويرمان ديال شجامي بل موي سافر جانغروي موي سافر قولي أين رحمة الرباني يتبوه باتاي ولي متحققة ياقوتة دجو فور دنگ ورسو ياقوت ورسو ياقوت المتحققة بين خمنة مو ملو ملو كانوا دق مجب لتران عبارة تدل على خيرات الأحمدية تي فورا ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم تي فورا حقيقة محققة أحمدية دنجا مملا مملا ياقوتة المتحققة دي جنجي mu ne nag loola du man te du dagan mukk nit xaas yi di ci waxtaan al am ay mbóot la yoo xam ne am ya duñ leen ci waxtaanal de xaas yi amuñ ndigal mukk ci waxtaanal ci am ya saydi aarifu billah almasri saydi mahamadul xaafis saydi mahamadul xaafis moom itam firi na ko leeral li nga xam ne mooy aynu rahmati rabbaniya dégg nga mu ne aynu rahmati rabbaniya googu dafiy junji aynul maa i maanaam sew ndew ndox woo xam ne mu ngay sotteeku du yol tasubbu fiha al faydul al qudsi mu ne bu fekkee ne xamoo ko daal aynu rahmati rabbaniya mu ne rek mooy mu ngi mel ni yoon ndew ndox woo xam ne dafay yool rek di bëbbu faydu xutsi di ci sotteeku bëgg yàlla gi nga xam ne moo koy jaarale ci jamono bu ne borom jamono te yonent bi sallallahu alayhi mooy cosaanu loola mu ne soo bëgg a dégg ayn rahmati rabbaaniyati rek mooy loola wa minhu yasqi ca lay nàndale eh, moom yàlla man saqa yàlla ci loolu rek yàlla nàndale yàlla di nàndale mboolem ku naanu di ginnaaw ga wax ja toll loolu lan wax yonent bi salaasam bi wax ne ana qaasimun wallahu mu'tin man maay séddale yàlla mooy kii jox waaye man yonent bi salaasam kon ñu bind ci ku ci mel nii comme ni ko Seyd Lubayt yi leeralee bind ci téere di leeral jawharatu kamal mu ñeel ñi nga xam ne ñoom doo wax sax ne munkiru nañ waaye way réer lañ yoo xam ne ñu ngay réeral ñeneen ñu dul ñoom ci ñàkk xam ñu daldi di bind téere ku ci mel ni saydi muhammad ibnu muhammad ibnu abdusalaam kanoon bii di xillul afaali li qiraati joorati kamal naka noonu saydi muhammad ibnul amin sinqiiti bind na ci tuddee ko raddul raddul muhkam fi sixatil asqam dégg nga raddu la boo xam ne day day day delloo tuuma ci ku bind jàngale jéem a xam jéem a gëmle gëmal nit ñi ne dégg nga jawaratu kamal wérut ndaxte baatu asxam bi firi feebar siratika taamil asxam boobu ñu ne loolu du lu wér gis naa sax ku ci def ojo boo dugoon jutu bi sax mën nga koo gis mu ne ndeysaan loolu njuumtil la sax ci salaatu bi pour ñu wane ne salaatu bi wérul waaye loolu ñàkk xam kese gu ci am la ndaxte euh, luga arabiya su fekkee làkku arab su fekkee ne yàlla mayul la ci tamkin nga bëgg jaa wax rek mën nga nga daanu daanu bu métti métti métti loolu xëy ne moo leen ci dal buñ ci yegsee incha allah dinañ gën a yaatal baatu asqam boobu bañ xam ne rek fi ko gaa yi yóbbu bëgg a wax ne mooy jógee ci suqum gi fii di feebar pour ñu xam ne baatu asqam bi jógewut foofu allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati yàlla na nga julli yow yàlla te sëlmal ci si jëmmi jëmmi yërmande yàlla ji nga xam ne maolana cheikh ibrahima mu ngi ko tagg feneen rahmatul xalq asluhu man anaara alxissa wal aqla buru kulli alili mooy yërmande yàlla ci jaami bal mooy saafara jàngoro yi mooy saafara xol yi ayn rahmati rabbaniyati boobu ba tey wal yaquutati mutahaqiqa yaquuta doju foor la dégg nga wurusu yaquut al mutahaqiqa bi nga xam ne moom moo meloo melokaanu dëgg mu jublu ci ran ibaratun tadullu ala xayraati al ahmadiya ci fooraayu yéen ci muhammad sallallahu alayhi wa ci fooraayu xaqiqa mu ahmadiya dégg nga moom la moom la yaquutatil mutaxaqiqa di junji mu ne nag loola du man te du dagan mukk nit ñi xaas yi di ci waxtaanal am ay mbóot la yoo xam ne Ambia duñ len ci waxtanal de xaas yi amuñ ndigal mukk ci waxtanal ci Ambia سيدي عارف بالله المصري سيدي محمد الحافظ سيدي محمد الحافظ مومتم فرينكو ليرال ليغا خامني موي عين رحمه ربانيه دنج من عين رحمه ربانيه جوجو dafay junji aynul maa i sew ndewu ndox woo xam ne mu ngay sotteeku du yol tasubbu fiha al faydul al qudsi mu ne bu fekkee ne xamoo ko daal aynu rahmati rabbaniya mu ne rek mooy mu ngi mel ni yool ndew ndox woo xam ne dafay yool rek di bëbbu faydu qudsi di ci sotteeku bëbbug yàlla gi nga xam ne moo koy jaarale ci jamono bu ne boroom jamonoom te yonent bi sallallahu alayhi mooy cosaanu loola mu ne soo bëgg a dégg ayn rahmati rabbaaniyati rek mooy loola wa minhu ca loolee lay nàndale eh, moom yàlla man saqa yàlla ca loola rek yàlla lay nàndale yàlla di nàndale mboolem ku naanu di ginnaaw ga wax ja toll loolu lan wax yonent bi sallallahu alayhi wa bi wax ne ana qaasimun wallahu mu'tin man maay séddale yàlla mooy kiy joxe waaye man yéen sallallahu alayhi wa sallam maay séddale markazul fuhum wal maani boobu mu wax la nga xam ne ñu ngi ko peegee yaquutatil yaquutal mutaxaqiqa boo ko xamut mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku mooy nuurul akwaan leeru kawnu bi leeral àdduna wal mutakawinati nekk gii kawnu bii nga xam ne mooy kawnu bi nekk nga mën a gis lenn li ci zaahir lenn la ca def doo ko mën a gis muy aalam bii ñu nekk aalam bii nga mën a gis lii ci lenn ci zaahir la ca des doo ko mën a gis lenn dafa fàdd yow ba mënoo koo gis la ca des yow yaa fàdd dégg nga ba mënoo koo gis la ca des yow yi li ñuy bari bari ah, suñu aalam bii benn la rek ci dañuy wax ne àdduna ak àllaaxira benn alam la ci alam yooyu kon ki nga xam ne mooy leeral kawnu bi kawnu yooyu mu ngi ci ko jug aadama yi mooy doomu aadama la sallallahu alayhi wa sallam la ci sëti aadama yi moo taxoon mu wax ne ana wa sayyidu di aadama man maay sangu doomu aadama maanaam maa gaa ñi bokk maam de incha allah raw mooy suñ mooy suñ maam waaye man maay sang mboolem lu aadama jur kon euh, moom mooy nurul akwaani mutakawina waaye al aadami kooku mooy kan yonent bi saahibil xaqi ar rabbaani moom mi nga xam ne moom moo moo moo moo am li nga xam ne mooy moom mooy boroom dëggi dëggi dëgg ji mooy dëggi mooy borom dëgg ji nga xam ne yàlla moom la moom la saxal ci dëgg daal mooy boroom dëgg ji nga xam ne moom la yàlla amal ngir mu fésal dëgg ji ji nga xam ne mu fésal li nga xam ne ah, jaamu ñu war nañ koo xam loolu mooy saaxibul xaq rabbaani yeneen ci boobu mu melal ko ne albarq al astan leer ga da aji jolli ni melxati gis yàlla bu yàlla ji di waaja taw wala mu taw gis nga melxat yu leer yooyu mooy barq ni muy leeralee goox yi yeneentu bi noonu la ko melalee al barqil asta bu muy leer nag moom melxat ya du lem ci leer waaye dafay àndaale ak ay niiri taw ay niiri ngëneel moo tax mu ne bi muzunil arbaax ci ay niir yaay ñoom ay tono lañ ay bénéfice la ñeel doomu aadama waaye bénéfice la ñeel jullit bi am na ci loo dafa ñeel doomu aadama yëpp waxtu yàlla xéwali àddunaam yi jullit baag yëfe baa ci bokk yem waaye ginnaaw loolu itam am na geneen xéwal goo xam ne nag ah googu nag ñi ko topp nangu ko ne ci ndigalam ya mooy du tere mais nag ñoo ñoo am jagu boobu mooy almuzun al arbaax maa li mooy melxati gaa moom dafa ànd ak ay niiri taw ay niiri ngëneel yoo xam ne nii di ngëneel yooya dafay sotteeku di feesal mboolem kuy aji taataan mboolem kuy taataan rek nii de feesalal la isan ne ko abbas taggee woon waa bi yadu yusra bi wajhihi simaa bi yataama ismatun li arabili loolu nag lancement la woon ci may gi nga xam ne yàlla may ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon yonent bi salaa salaam niir la woo xam ne niiru ngëneel la ñeel mboolem ku sàkku niir wa jege jege taxu koo am sori taxu koo ñàkk waaye ñu ngi koy amee rek ci dagaan ak bëgg ak fuuglu su fekkoon ne jege ci deret rek kay tax nit am ngëneel yonent bi ah ñu àll ku ci wax Quraysh abu lahab abu jahlim ñoom Utba ñoom Walid ku noonu kenn du leen gën a jëriñu waaye luñ jege-jege rek ñoom gisuñoon muhammadu muhammadu rasulullah waaye muhammad muhammad ibn abdullah lañ gisoon loolu mujj nekk leen kii daay waaye képp ku dagaan te nangu risaala gi nangu mbóot mi rek di nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy dañuy taataan musunul arbaa moo tax mu ne li kulli mutaaridin min al buxuuri wal awaani ndeysaan xolal nim léebee ñi nga xam ne ñooy taataan leeri yonent bi alayhi salaatu wassalaam min al buxuuri ci ci géej ya wal awaani ak ndab ya géej ya dañuy duy ba fees waaye ndab ya itam danañ duy ba fees géej ya mooy lan mooy yonent lan mooy ndab yi mooy wali yi lu waral misaal ba maanaam lan mooy misaal ba mooy li Seydina Cheikh radiallahu anhu jàngale ci tëbbu bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy tëbbu mbindeef wax ji mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom la mbooleem awaalimi di tëbboo comme ni mu la ko misaalalee ci wax ja ana wala ana qaasimun wallahu muti ana qaasimun wallahu muti man maay séddale waaye yàlla mooy kii joxe kon bu tëbbee bu ko péeb yàlla bi tëbbee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy tourné tëbb mboolem lu nekk ci ronam te li nekk ci ronam yëpp ci moom la tëbboo شمعنا واخجمني انا من الله والمؤمنون مني مرة سيدنا الشيخ رضي الله عنه مللكو ني كل ما فاض وبرز من ذات العلية تتلقاه ذات النبي وكل ما فاض وبرز من ذات النبي تتلقاه ذوات الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء زلقاه ذاتي ومني تتفرع إلى جميع الخلائق أو كما قال من يرين تبي صلى الله عليه وسلم لب لغونغيكو تجمع اللجي لب لفو تبو رك لب لفو غونغيكو رمجي تبو تي حقة محمد يجي بي يرين تبي صلى الله عليه وسلم lépp lu gonge ko foofee mooy ci peyu yonent bi mu ngi daadi di ball mu daa di ko dékku dégg nga yonent yi yàlla yi nga xam ne ñoo nekk ci ron yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu jóge ci yàlla ci yonent bi lay jaar lépp lu jóge ci yonent bi ci yonent yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy dékku waaye lépp lu jóge ci yonent yi Cheikh Tidiane mu ne man mii sama jëmm moo koy dékku su ko defee nag ci man lay jógee servir man daa di ko servir jaam yàlla yi ci ay xaalaki maqaama moo taxoon wax ci waxam ji ne xadamaaya haataani fawqa raqabati kulli waliyin min ladun aadam ilaa nafxati fi suur sama ñaari ndëgg yii mu ne tegee na ci mboolem doq wali yàlla la ko dalee ca maam aadama ba kere ñu wal bëft bi boroom xam-xam yi fii ñaari ndëggu ya ne mooy ndëggum shariatu ak ndëggu xaqiqatu seydina cheikh radiallahu raw na ku moom ci sharia te jaaruwaayam ci xam-xam wane na ko waaye raw na mboolem kuy wëllu ci xaqiqa ndaxte moom mooy moom it dul awliya nii la melalee ne tëbbug yàlla gi nii lay gonge waa ji nag ah yonent yi ñoo fi jënd yonent bi waa ji ne mooy tëbb yonent yi yonent yi tëbb waaye waxeexut ci zaahir bi nit ñi gis nii waaye mu ngi waxee ci azaliyatuk yàlla gi nga xam ne foofu la doon mayee may jël may yonent bi jiital ko ci mboolem may teg ca kam ci teg ba ci wali yi limaam bu sori waxoon rek doy na jiitu yonent yi ci yonent yi sallallahu alayhi du jiitu seeni may ci mayam waaye jiitu jiitu surga la rek ci njaate yi jógal nga dem tool mu jiitu dem ci tool ba njaateef bi soog a ñëw jiitu googee tekkiwul jiitu maa amee pour maa amee ndigal waaye jiitu dañ maa dañ maa dañ maa rek la kon ay mbir yu doy waar la waaye Seydina Cheikh ñu la melalee moom nag mooy xaatimu lawliyaa moo tax mu sañ wax lii ci ndigalal borom lu yàlla yi duñu wax dara ci seen bakkan waaye dañoo fekk pib yàlla bee leen sant wax rek ñu wax ngir jëriñe li bàyyi radiyallaahu anhu waxoon Sidi Ali im ne ko nachital ahbaaba fi xidmati lii fa innahu la shay azam min al xidmati lii wax ja pare daf ne ko laysa fi kalaamu sukrin innama hiya kalaamu murshidin innamaa huwa kalaamu murshidin naafiin sadara an iznin duwul wax joo xam ne waxi kuy puukarewu la dégg nga duwul koo xam ne waxi waroon kuy màndi la waxi leneen dafa nekk wax joo xam ne euh, waxi kuy gindi la